lan bikum jàngoro ji nekk ci wàllu xàtte ci Sénégal moom la ñu fas yéene xutal ay garab ngir xandi ci saafara niki suba ci talaata ji ndëpp national moom la kilifa yi yor réew mu fas yéene xamal ngir faxe ba rëq-rëq jafe-jafe yi nekk ci attekaay yeeg ëtt attekaay yeeg nañuy xàttee ñu faxe ba loolu jóge fi yoon tëddee njaaxaanaay képp ku jàdd yoon yoon dal ci sa kaw xamut faafar ak président lu ma neex def te dara du ma ci fekk déedéet fa ñoo kaso lu yàgg te duñ leen xàtte ak yeneen ak yeneen vox populi ne dialogue national boobu ñu jagleel wàllu justice nag professeur Babacar Gueye moom la ñu dénk wàlla yombal gi président Diomaye moo ko dénk ba tax wal fajir yéen kaay ne président Diomaye Faye kay ma ngay doxal projet bi jëm ci wàllu yoon lépp ngir ñu ñoŋal ko fa ñuy jubbanti yëf yi info yéen kaay na ko waaye hee coppite yooyu ñu bëgg a ànd ci wàllu àtte justice ci dialogue national bi coow fa cee judd fi mu toll nii tribune yéen kaay na ko li ci xam fa weesu ay coow li ñuy wax farce affaire caaxaan caaxaan ci gàttal lañ ca nemmeeku ci wàllu réforme boobu ah. yow seetal fa xam ñoo xam na ay délinquant lañ fa ñoo luubal sàcc xalalu askan wi léegi ñooñu nag fañ leen a invité ñu war a bokk ci dialogue national boobu est xel nangu na ko ak ñoo xam ne askan wi fa leen a wëcc waxutu si ñoom dara ñu nar a jàkkaarloog suñu magistrat yi ba tax Moustapha Diakhaté fa wax ci leesi ko yéen a kaay na dialogue bii ñu bëgg a andi ci wàllu justice bi baaxul santud yàlla attentat la ci suñu république bi ñu ne déetewaay ñii fa ñoo saaga suñu àttekat yi ndax faa xamul ana lan moo tax dialogue bi ni mel ñu ci invité koo xamante ne fañ koo tudd ne bokkoon na ci ñi xam ne ñoo rey maître Babacar doon attekat te mooy Clédor Sène kooku kenn waru koon a invité ci ndaje mi ni bés bi yéen a kaay ne gars yi niñ nar a tëralee assise bi ci wàllu justice fa xam li ñuy wax vice de procédure maanaam fa ñoo benn yëf ya ndax fa ñoo invité ñoo xam ne fañ leen a tëjoon kaso te ñu bokk Pastef ñu ne déetawaay ñu invité Clédor Sène Moustapha Diakhaté loolu faa ko ñaawlu info yéen a na faa di waxal ba tey ci coow loolu Aliou Ndao fa invité benn bokk yaakaar a faale coalition moom jumte fa ko gën a róyam Abdoulaye Wilane ne ñii daaw xam daar daar a lijjanti ñu fexe askan wi fàtte tax ñuy organiser lii waaye lii du dara lu may perte temps la affaire caaxaan-caaxaan rek la jëwriñ yi ñu dénk wàllu yoon mel ni ku leen di tontu ne yéen daal faa xamul lu ngeen bëgg ci réew mi Sénégal yëpp li ñu seetlu mooy wàllu àtte fa am problème ci réew mi fa ngay gis ku def lu ne weng ngay kilifa wala nga far ci nguur kenn du la def dara par parloo geek doxalin bi faxe jubale askan wi ak àttekat yi ak seen wàllu yoon ñu wóolu yoon dajale askan wi kenn ku nekk fànn ba nga nekk nga joxe sa jàpp na lii buñ ko defee yëf yi dana dox loolu kay ñëpp a rafetlu ko ñaawlu te ngeen di coow nii nii naan man faa ko génnee faa leen di xamal leen loolu du ngir ñu war a bokk déedéet waaye liste bi ñu génne nag mooy liste bi nga xam ne ca lañ war a sukkandiku tànn ca ñañ ca war a invité ca lañ war a sukkandiku ci wàllu liggéey bi noonu la mbir yi demee de vox populi na ko ah ñun daal gis neen liste ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci ay doomu aadama yu ñu invité waaye subaak jàmm yëf yi dana leer fa ñuy xam kan nañ invité ku ñu invité kuy bokk ak ku bokkut <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne fexe ba réewum Sénégal lépp lu muy dundee mu di ko bay ñu xam lu mat sëkk ci réew mi bu soobee yàlla loolu danañ ko def Sénégal njiitu jëwriñ Ousmane Sonko moo ko wax nee na donte nag du yomb waaye bu soobee yàlla def fañ ci xam ndam de man ko waxee ci réew mi yéen a kaay Habib Thiam jiite COPEGA nekkit opérateur économique ca tey baña seen Kaolack ndangaan moom fa wax ci turbine yéen a kaay ne yoon wi nga xam ne moom la kilifa yi bees yi jiite réew mi jëm ci wàllu mbay mi yoon wi ñu aw fa dal baax na ndax jël nañ ay dogal yu am solo lépp ngir lu yokk baykat yi ci jiwu weeg engrais beeg yeneen yi ni mel ak yoon wañ ko war a séddale kon bu soobee yàlla su fekkee yàlla ji andi na tawam bi ren danañ am xam ne ci mbay Sénégal mosu koo am Habib Thiam kàddoom ya ma ngi ca a kaay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ kilifa yi jiite réew mi fa ñoo bëgg a ànd ak coppite dëgg-dëgg ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ba tax na wàllu examen 2023 2024 fañ ci ànd ak coppite bëgg koo ñoŋal ba tax Sud Quotidien na état bi fa ñëw ngir sowe xanam yi nar a xamalee examen yi lii yéene kaay moom fa ñoo xamal ne tey ci altine yi mooy bésu dëgg ci baa jaxata ak imaam ndaw yaw seetal ginnaaw bu njëkkatee kàddu yi ñaaw ak i tuuma toftal ko ci Ousmane Sonko njiitu jëwriñ yi ak président Diomaye Faye bañ teg leen loxo tëj ca kaso ga tey ci altine ji nag ci leen leen di xatte baa jaxate nag fa waxoon ne wax sonkoog président Diomaye Faye lépp am na ci ay firnde avocat ba dëggal ko léegi tey nag danañ xam ndax loolu dëggal wala du dëgg ndax tey faw ñu joxe firnde yi ci kanam àttekat ba su andiwut nag ay firnde preuve yu leer nañ tii su ma ko mbaaw de lii yéene kaay moo xëy di ñu leeralal na yëfee nar a demee baa jaxate nag la waxoon toxalut ca wirgil imaam ndaw nag moom fa sàkkun nañ ko baal fa juum te la mu doon wax sonko amu ci benn firnde la mu am firnde nag wax ko moom maître Oumar fi nekkoon jëwriñ ci jamono Macky Sall mooy sonko daal waxoon dig ko sénégalais mooy góor jigéen buñ falo fañ koy criminaliser waxuñ affaire toléré loolu nag la waxoon na ko jëfee wax ci diggante Macky Sall ak Amadou Ba APR lépp mu nga ca l'observateur yéen a kaay yéen kaay bi di la mandat moom it fa xëy addu ci ëllëgu Amadou Ba ci wàllu politique biir APR ak taxawal parteek nekk chef opposition bi critique yéen a kaay fa koo feelu ci Amadou Ba nekk gi mu nekk chef opposition bi jiite ku jégi waaye taxawaay bi mu ci war a amal la ñu taxawal nag mooy bato bi ñu tuddee entreprise Baye Niass jafe-jafe yëpp mën a jural ña fa doon liggéey ak problème yaag yëpp a a kaay fa xëy di leeral ne mbootaay réewu Europe yi liñ mayee ci visa ci doomu Sénégal mat na ñetti téeméeri junney visa ci benn at bi nag la laa wax yéen kaay bi ne visa yooyu nag sénégalais yi réewu tubaab bi ñu gën bëgg di dem mooy France Espagne moo ca Belgique waaye li ñu mooy sénégalais yi waxuñ dara ci réewum Autriche ak Pologne presque duñ fay ñaan visa direct news na ko réewum France moomu nag jot na wàllam de ci Ousmane Sonko ci kàddum yëkkati jëmale ko ca Macron seen njiitu réew ma ki fi nekkoon njiitu réew bu Côte ci ay jamono Henri Konan Bédié ginnaaw bu mu génne àdduna ji aj yi ngir ñu aji màkka waaye li ñu seetlu mooy Air Sénégal du ay avion moom la yóbboo nit ñi màkka de déedéet fay dem luye ji avion ñii luye Jakarta def ko liggéey muy dawalkat ya point acti yéen a kaay nee na fitna jafe-jafe faatu dee gu bëri moom lañ teg askanu ndakaaru su fekkee ñi ngi def accident oto yi di leen rayit fitnaak agressé ak yeneen yi ni mel fañ ko cay nemmeeku li ñu nemmeeku réewum Sénégal mooy drogue bu bon bu weex boobu mel ne sunguf a douane bu Sénégal lu jege fukki junney tonnes teg nañ ko loxo ci diggante 2021 2023 ci xaalis bu toll nag ci 596 milliards weeru janvier bii weesu rek lu ëpp benn tonne ak genn wàll presque teg nañ ko fi loxo ñu koy xayma ci téeméeri milliards ak fukk ñaar foog su populi ne dëgg la dorog bëri na ci Sénégal waaye xam na lu fi gën a bëri mooy cigarette si waaye faa di wax ndekete cigarette si suñu jaay si réewum Sénégal gii état bi fa ci am xaalis bu bëree bëri ah, yow seetal 122 nga xam ne ñooy defar cigarette ñu ngi joxe vingt milliards ci wàllu recette fiscale ak quatorze milliards ci ay salaire hmm, waa ma ne man kay faay door di comprendre nag waxtu nekk may dégg ñu naan cigarette si baaxut bàyyi leen tux ba pare te cigarette si ñu ngi koy jaay sàngara baaxut ñu ngi koy jaay ndékkate yoo état bi fa ci am ay milliards yu gars yi fay ngir mën di ko fi jaay taxe yu ma la mën wax bu fekkee nag yëf yi nii lay demee da naa cigarette fa fi yéex a jógee <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mouhamed Sakho ak ekip bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg fexe ba noo leen di jote ci njàngale alquran al karim njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ci anam bu leer bu wóor bu sell bu mucc ay